waaw euh, ñoo ngi ñoo ngi euh, euh, rafetlu tey li nga xamante ni moo fi xew mu nekk woote boo nga xamante ni président de la république loo nga xamante ni président de la république moom moo ko woote ak premier ministre am mooy set setal suñu réew ñun ñu ni kon set setal suñu usine mu tàmbalee fii ci usine u Dakar mu nekk loo nga xamante ne ni dañ koy continuer ci yeneen usines yi nga xamante ne ni mooy usine u Diourbel ñu jugee Diourbel dinañ dem Kaolack suñ jugee Kaolack dinañ dem Louga suñ jugee Louga dinañ dem Ziguinchor continuer di ko def noonu mu nekk tamit woote ba nga xamante ne nii bi ñu ko président ak premier ministre wootee ñun ñu wuy si ci dafa am tamit suñu yeneen partenaires yu ñu ci wuy si comme direction de la du cadre de vie euh, euh, AZ Challenge euh, Sabina Sel Sénégal sapeur pompier duwaan ak police ñoom ñëpp ñu wuy suñu ci ñu ànd ak suñuy collaborateurs yu Sonacos ñooñu woo seen ay famille woo seen euh, ay xarit ñoom ñëpp ñu génn ñëw ñu am mobilisation bu extraordinaire vraiment ñu ciy kontaan bu baax yaakaar ne nag lii non seulement wuyu la ba nga xamante ni dañ ko wuyu si action wu wala woote wu président de la république mais tamit nekk na action ba nga xamante ne action citoyenne la ba nga xamante ni dañ ci woo itam yëpp sociétés yi nga xamante ne ñoo ngi ci réew mi moo xam dañoo nekk ci public bi dañoo nekk ci parapublic wala ñu nekk ci privé bi ngir ñu fekk suñu ci action yi moo xam fii ci Dakar la moo xam ci région yi la waaye te ñoo ngi ci woo ñëpp képp ko nga xamante ne nii euh, euh, gestion de l'environnement yitteel na la yi yitteel na la yi yitteel na la yooyu yëpp nekk yoo nga xamante ni dañ ciy dañ ciy liggéey. ñu ci remercier nag comité bi nga xamante ne ci biir Sonacos ñoom ñoo jëloon liggéey bi jël ko en charge avec une très belle coordination ànd ak équipe yëpp ñu daal def liggéey bu toll nii. gis nañ ni déjà fii yëpp am na xar kanam bu bees boo nga xamante ne wane na ko ñuy remercier ñëpp ci seen itam. jërëjëf. ok man la Foun Ndiaye euh, adjoint secrétaire général syndicat Sonacos EID. Euh, e ban njàngat bon njàngat bi ñu def di gërëm bu baax euh, DG xalaat bi mu def nga xam ne président de la République moo ko njëkkee ne chaque fin de mois premier mois premier di premier jour yi ci fin de mois bi ñu def ci setal bu mel nii comme ça ñu setal suñu réew. mu nekk mbir moo xam ne DG mun naa ne ci Sénégal mooy société bi ko njëkk def. mu nekk loo xam ne lu am solo la euh, ñu commencé ko au niveau du rond dem directement boo Bel Air donc loolu euh, vraiment di si gërëm liggéeykat yi parce que liggéeykat yi mobilisation bi ñu def dañ ciy gërëm le secrétaire général en personne muy euh, Seydou Diouf bi ñu ne bi ñu lancé affaire bi ne day am moom nelawul guddi nelawul bëccëg loolu ñu ngi ciy gërëm liggéeykat yi parce que liggéeykat yi dañoo nekk ci ginnaaw syndicat bi vraiment lu ñu leen wax ñu def ko moo tax mobilisation bu mel nii am te yaakaar naa li mu am nii Dakar gëw ma ne ñeneen mun nañ ko def kon loolu di ciy gërëm Seydou Diouf ak le DG. est-ce parce que ngeen lii bon lii dafa nekk loo xam ne dañ ci fekk Sonacos Sonacos dañuy yàgg def set setal donc lii bu amee ñu dañ ciy continuer parce que lancé la boo xam ne. Euh, tey lu ñuy lekk la ñuy defar lu ñuy lekk tout le temps dafa war a set li ñu ciy dolli mooy le président de république na def le tout jàppale Diomaye euh, jàppale Ndaam le DG parce que dañ ne bay dundee te Sonacos nekk na ci xam yoo xam ne tey euh, le le le président de république ak premier ministre ñoo ko mën a jàppale donc am na xalaat am na xam-xam bi bëgg na liggéey bi bëgg na liggéeykat yi bëgg na usine bi kon boog loolu na ko président jàppale lu ñu bëgg li ñu bëgg ci matière ñu mun ko am gerte gi ñu nañ ko jox Sonacos Sonacos jël ko nal ko jox ko sénégalais yi lekk ko parce que mooy diwlin bi nga xam ne moo gën a baax moo gën a baax ci wérgu yaram moo gën a baax ci lépp kon boog donc bu ñu jàppalee président de la république bu ñu jàppalee euh, le DG kon boog li ñu bëgg ci mbay dundee mun nañ ko am Sénégal li ñu bëgg ci wàññi diwlin wala li sénégalais yi di jooy Séné Sonacos mun na ko te yaakaar naa bu ñu jàppalee DG loolu na nekk comme boog loolu ñu ngi cee lancé un un appel le président de la République ak son premier ministre ñu ngi leen di wax ne nañu jàppale Sonacos Sonacos taxaw na pour jàppale état pour diw ñu mun a wàññeeku ci Sénégal waaye. merci. man fay nekk siège euh, Sonacos SA nekk charge des revendications euh, syndicat siège. waaw di rafetlu rek euh, on est venu comme invité ñu invité ñu euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko organisé tey muy de euh, waa siège ñëw indi renfort jàppale leen ci liggéey bi di ko rafetlu ah, di gërëm aussi le le directeur. le directeur euh, muy El Hadj Ndane Diagne parce que dafa ñëwaat motiver waat euh, l' équipe Sonacos euh, ñu gis ni le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar fay dafa ni chaque samedi du mois ñuy organiser sa setal après mu ni nag moom kenn du leen ci jiitu Sonacos du ci des ginnaaw les gens se sont mobilisés depuis six heures du matin ñu ñëw nekk fii alentour yëpp rond point dem nañu set setal ba set setal li nga xamante ni moom mooy or port autonome de Dakar kon ça veut dire que ni yemaluñ ko Sonacos kese dañu ko yaatal fépp ñëpp gis seen bopp. Hmm? di remercier aussi euh, ñi nga xamante ni ñoo coordonné affaire yi dañ ciy jiital euh, Mansour Ndiaye mi nga xamante ni moo dirigé sécurité di si gërëm aussi Fine Diouf nga xamante ni moom mooy responsable di directeur fii di wax aussi euh, état dafa war a dugal loxoom ci ci ci Sonacos parce que tey jii volonté bi am na fi personnel bi am na fi les gens veulent mais accompagnement moo ñu desee sans l' état euh, peut-être que Sonacos dina dem mais fi mu bëgg àgg du fa àgg te bu son bu bu état jàppalee Sonacos dafay participer si emploi des jeunes parce que bu ñu gisee ni euh, gerte gi ñor na on euh, on sera obligé d' aller recruter des saisonniers te ñooñu il faut que ñun ñu am li nga xamante ne mën nañ leen ko fayee bu ko defee Sonacos tey delluwaat ci nga xamante ni liñ ko xamee woon démb mi nga xamante ni bay dundee ñu gis ni ñoom it seen politique dañ ci boole agriculture te agriculture agriculture ne peut pas aller sans la Sonacos donc dafa nekk li nga xamante ni euh, kii day dem mënul dem bàyyi moroomam kon dañuy woowaat ñëpp di ñaaxaat ñëpp di wax nii rek aussi euh, nañu jàpp ñu motiver taxaw nañ ci pour jàppale le le directeur comme yeneen directeur yi fi nekkoon jaaxoon fi aussi ñu leen ciy félicité de de de passage mais gërëm nañ ñëpp jaajëfal ñëpp mais comme daan dafa ñëw amaat leneen lu mu teg dañ koy suivre rek ñu ngi koy topp ñu ngi koy jàppale nañu jàppale rek woo sénégalais aussi ñuy ñëw di consommer local parce que ça ne sert à rien que état jàpp ci liggéey bi Sonacos di produit dëwlin ñuy jël di ko jox ñeneen di jël ay ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay privé ñu leen di euh, ñu leen di libéral marché bi beneen bi aussi dañuy waxaat aussi aussi ci gerte gi état dafa war jël ay mesures mesures yi nga xamante ne tey bu ñuy balaa benn chinois di jaay nañu jël ñu jël ko marché bi ñu jox ko Sonacos Sonacos bu jaayee nag ba doyal ñu doogay jox chinois yi mënuñ chinois yi mënuñu leen tere ñu jaay mais nañ ko encadré bi nga xamante ne tey Sonacos bu defee dëwlin pare jox ñeneen ñi gerte gi ñu ñëw jaay di gërëmaa ñëpp di jaajëfal ñëpp. revendication